ni baaxu fa mu ni kon ba tey ma nga fay daagoo ku wéet di xoolal ma nabi loxo ca kaw ay ku wéet di xoolal ma nabi Seyduna Muhammad dinaa la way bay fatu biitu bay Seynabu ni dinaa la way yow la nuy begey loxo ca kaw ku wéet di xoolal ma nabi dinaa fa mu nekkoon ba ma nga fay ku weddi xoolal ma nabi nabi suñu waajeey loxo jagal soxna umu kalsum dinaa la way yaay sobay nabi soxna umu kalsum dinaa la way man de sama naanaan ngoy jaale way xanaa dama koy dog dem ba beneen yoon dem ba beneen yoon dem ba beneen yoon dem ba beneen yoon dem ba beneen yoon dem ba beneen yoon dem ba beneen yoon dem ba beneen yoon maa ngi dem ba beneen yoon dem ba beneen yoon dem ba beneen lu neex lu day xanaa dama koy dog dem ba beneen yoon macha allah ndogu ndaanaan nii rek lay demee la ñu ubbee ci nga xam ne mooy pare à vie bi ñu wax nag yeneen ndaanaan yi yeneen célébrité yi ba ci sëriñ si ak ku mën a doon rek na nga xaar ndogu ndaanaan ci 7TV ajaratu umu saw mu baax mi ah, ngoy caali seen càmmiñ Cheikh Bamba Seck ah, tey li lañ jële woon ci kees macha allah indi leen ko ci ndogu ndaanaan télé bi ñuy nduru ba noppi di ñu dajale la télé qui nous ressemble et nous ressemble li la leen indi loon macha allah peace and love ba yeneen di jamono umu. waaw macha allah mbokk yeeg xarit yi ñuy seetaan ndogu ndaanaan saa su ne rek day ala daaw me nee naa ko mooy parrain bi moo ñu ko njëkk a ibbiloon kon nag dañuy baax xantal baaxantal alaaji sëriñ ba Seck ñu ngi lay ñaanal li nga bëgg ci yonanti bi yaa ko xam yàlla na la ko yàlla la ko defal sallallahu alayhi wa di ñaanal mbokku téléspectateur yàlla defal leen jàmm may leen gudd fan ak wér-gu-yaram di leen wax nii rek lañ dëkkee ak yéen bégal leen tey ci yonant bi ndax nag yéen a ñuy topp yéen a ñu bëgg bëgg suñuy émission bëgg may mun Maimouna Ndour Faye MNF barki Dembo Ndiaye li xew ci buntu 7TV ku ne xam ne ne ah cuune mënu ko ah ñëw supporter la journaliste yi ñëw supporter la say soppe say am di jàmm Ndour Faye li nga liggéey ci Sénégal yaa ko xam yal na yàlla fëgg sa bopp ñu ngi lay ñaanal jàmm kon nag lan xayran ak yeneen i ndaanaan ci émission ndogu ndaanaan ànd ak Serigne Bamba Seck looy tàggatoo. ah xanaa di sant ñépp rek. sant àjjana borom waa yow àjjana moom xam naa ne moom ton bee lay daaneel. xam naa li ne ci biir kër gi yëpp yow ton bi rek nga ci bëgg. xam naa ne danaa ne ku lay ku wër na la na wër ci ton. waaw ah, kii ku bëgg kii kii ku bëgg ton la. macha allah yal na yàlla defal leen jàmm. te seen ànd bi yàlla bëgg leen ko kenn yàqal. ndax gars yi wax dëgg yàlla ñu ànd la ñuy bañ te seen ànd bi yàgg na yow nga koy bégge moom mu lay safoo waaye man it yàlla ma yàlla bàyyi ñii ñi ma dëkkal parce que vraiment waaw mi ngi nii waaw vraiment um, um umu umu bu baax ñii mënu ma leen fay ñoo ngi nii toog mënu ma leen fay waaw vraiment mënu ma leen fay man maa mujj dëkk ci koñ bi wante boo waxee ñu ne Cheikh Bamba Cissé da ngay yee koñ bi nekkatee koñ bi da doon nelaw waaye dañu bëgg yonent bi waaye gisuñu ku leen jàppale yàlla naa jàng ñoom ñëpp seen nga nele màkka si barke Seydina Muhammad may mën a nduur nag àjjana tey du ma ko dara li ma ko doon wax wax naa ko ci biir kër gi tey wax dëgg yàlla man ak moom benn benn xaftaan ba ay cuub ba ay jesineer falaa laa yem ndax nag ma lam yashkuru naasa laa yashkuru laa damay faral di wax ne sama yaay nee na booy gërëm ku def dara faw ko deful dara mer artiste laa nekk ci milieu bi gis naa téeméeri àjjana waaye dama ne bii moom yàlla na ma yàlla bàyyi moom wax naa ko ci biir wax naa ko fi wante damay gërëm borom télé bi yàlla na ko yàlla defal jàmm may mun a yàlla na la yàlla defal jàmm may mun a yàlla na la yàlla téyel may mun a yàlla moo dooleel ku yàlla dooleel ku ne boo ko bëggee néewal doole yaay yaay ñàkk doole te it yàlla nee na inna allah maa sabirin lii nga muñ ni yàlla na la ko yàlla defal mu ne kii bànneex di gërëm bu baax waa télé bi ba waaye di gërëm itam ñi ngeen fi fekk bu baax a baax macha allah di gërëm bu baax a baax a baax ñi ma yàlla booleel ak tëggkat yi waaye di ñaana yàlla suma xalifa ah. na tey jii waa sallallahu ala muhammad am nañu cent quatre vingt dix mille cent quatre vingt dix mille six cent sallallahu ala muhammad kon xam nga ni kon ñoo ngi julli ci yonent bu baax waaye ñu ngi gërëm waa présidente bi nag di soxna nday Diallo mee toog. ñoo ngi koy ñaanal yàlla ak vice présidente bi ak ñëpp di wax ne Sénégal Tidiane Mouride Khadir dee leen julli ci yonent bi julli yonent bi mooy mbir mi ku dul julli ci yonent bi umu xoolal kuy julli ci yonent bi ak ku dul julli ci yonent bi wasalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf caméraman bi jërëjëf yàlla na la yàlla defal jàmm